candidat yu bari yi non mais xam nga dañoo nekk ci ay élection yoo xam ne dafa ubbeeku président bi nga xamante ni moom moo fi jugee euh, nee na du def troisième mandat du def beneen mandat donc ñu toll fu nga xamante ni ñu bëri ci askan bi dañu maanaam dañoo yeewu ci politique ci bari dañoo commencé ay activité politique te daanuñu ko woon def mais aussi bon Euh, candidature présidentielle mon ku nek am na droit ne man je suis candidat donc gisoon nañ fi en 2019 Kouthia avait déposé sa candidature ak ñeneen ak ñeneen donc euh, au fur et à mesure ñuy dem candidature bi di bari parce que nit ñi dañuy gëna impliqué wu ci politique moi je pense que lolu lolu lolu loolu